Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également Gaël de baisser bah, les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. Mbokk sénégalais en fait fole les maintenir 14 régions du Sénégal ruux-ruuxaat yi gox-goxaat yi ñu leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër du février, feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa dellawaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen naa fi daw si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV et de Baba l'actualité on continue gars actualité bi ñu fas yéene donc mauvaise nouvelle pour kii di donc Pape Ndiaye Soirée Et également Cristiano Ronaldo mi nga xam ne nag gars yi nee nañ par rapport à li nga xam ne mooy euh, jëlu ballon d'or Lionel Messi alors que Lionel Messi mi ngi ko si daal di tàgg loolu ñu fas ci ñi nga xam supporter ou Bayern de Munich gars yi lii mooy nekk kit bu entraînement bu Bayern de Munich donc c'est une vêtement yi moo nekk nii ci saison 2024 bi ñu jëm selon Footy Headlines donc orange bi le la ñu daal jël saison bii di ñëw ñii di waa Bayern Munich di waa Arabie Saoudite ñoom dañoo bëgg a organiser coupe du monde 2034 gannaaw bi nga xam ne Maroc dafa bokk ci ñu koy organiser 2030 ndax ñi nga xam ne waa Australie ñoom nañ bokkatuñu Arabie Saoudite daal fi mu ne daal a daal di amal ah, daal mooy bëgg bëggam fas yéene ko teewal ànd ak ci ñoo xam ne dinañ ci indi ay daal ci kanam Marca nag ñëw ne i el primero de muchos ñuy wax ci nga xam ne mooy donc kii di Aitana ñu ne euh, benn ci yi nga xam ne mooy yu bëri yi mu war a jël wax aussi Lionel Messi puissance huitième ballon d'or pour la Paul Ga mi nga xam ne actuellement mi ngi wane baax a as ñëw ne euro mondial ne lor mondial pour ñi ne moom tey moom dinañ waxati ah ne moom dañuy dañ koy wane kii di Karim Benzema nee na am not interested je ne suis pas intéressé gannaaw bi nga xam ne nag yi nekk France ñoo ne moom daal fi ne ni na ci xam ne mooy donc joueur français yi nga xam ne bokk nañ ci ñu cité ci Ballon d'Or même bu fekkee ne gagné moom nag il n'est pas intéressé passé Benzema daal fini ne dafa suur waa France dafa mel ni huitièmement ah, moo nekk le meilleur classement africain ci Ballon d'Or bi ñu nek ni di ki nga xamne moy donc euh, Victor Osimhen grandissime favori pour remplacer et succéder Sadio Mané au Ballon d'Or africain donc le Nigérian bi nga xam dal gars fi ah, dañ na saison aussi boost époustouflante trophée cop trophée Copa bi ñi ñoko jël ah, donc ñoko jottu a jël Pedri moo jël 2021 2019 aussi ki nga donc euh, le défenseur hollandais moko ko Delirte également Mbappé jël ko 2018 2022 Gavi 2023 qui a donc Jude Bellingham qui on a 2024 pendant ça également qui a Erling Bro il aura tout gagné tout gagné sauf le ballon d'or il aura tout gagné il le la gagné ki a xam le meilleur buteur ak pour moi pour a tegale qui benn saison une saison exceptionnelle pour le joueur norvégien qui a ramené aussi le Messi ballon d'or, depuis 2009 le côté jël 2010 2011 2012 pour koy 4 ans mu tegle 2015 hein, donc 2019 2021 2023 pour la Pulga voilà mérité pour Lionel Messi ak également le football de manière générale donc huit trophées il nga xam un super ballon d'or avec moo décès et comme je dis quoi qu'on puisse dire man li du neex football moi voilà man j'aime le football moi Cristiano Messi Ronaldo il ma intéressé ba mooy football rek man ku ci football ma dafa wax ko mais ay comme ki nga faral yooyu nekkuma sax yoy Sénégalais la faral mais aussi Lionel Messi dafa def geste bu rafet quoi dafa daal di témoigner si Cristiano Ronaldo ñu laj ko fi ne comme que jël nga huit fois ballon d'or raw nga Cristiano Ronaldo lu bari mu né écoutez ma Cristiano Ronaldo sur le plan athlétique il a toujours été présent donc sur le plan athlétique Cristiano Ronaldo dafa mës a teew dafa yàgg niveau bi mu né pour man du yegg sax ci ñaari at mais man ak moom concurrence bi ñu fa demee tax na lu tolloog fukk ak at ak lu ko teg la fukki juróomi at ñu koy daal di yor donc dañ koy rendre hommage alors ce pendant ce temps également Cristiano Ronaldo moom benn journaliste bu nekk ci Espagne moom moo daal di publier lu ni mu ne donc saluer les amis ah donc euh, kii Lionel Messi jëlaat na li nga xam ne nag donc ballon d'or bi félicitations euh, Léo le kii voilà le champion Cristiano Ronaldo daal dafa ree ree daal la ci li wax ni Messi gaay nak nenañ day kaañoo Lionel Messi quoi da koy da koy ki ah day siisoo lolou la <laughs> gars yi di wax donc moo en tout cas daal ce ko di mooy rivalité bi neexna na indi na football fo xamné ne fo et comme je dis moi je fais partie des gens yi nga xamné mané boudé tek ball dee bal football tek football rek boudé bëgg football football bu rafet Messi moy premier boudé également efficacité devant les buts Cristiano Ronaldo moy premier donc bokkuñ sax bu rôle ki attaquant la ki créateur la donc moy lolou ki na gaay xamé ngeen quoi <laughs> moy garde du corps bu Lionel Messi bi nga xamné kenn du dal Messi même boo wajé waaj sax à un mètre un kilomètre mu daal pousse moom gis ngeen ko bokk na aussi ci ñu gagné ballon d'or bi ah gis ngeen ko mi ngi la Pulga ah. pendant ça également ki nga xam ne nag gars yi boy bi nañ koy suivre Hein, Kali actuellement c'est le troisième meilleur buteur de son championnat un jeune beau ramené depuis ba mu nekkee gën a nekk xale laa ko doon suivre ba léegi c'est un gosse qui en veut ku ci bëgg lu bëri donc le classement bi également mi ngi nii gis nañ ko moo troisième donc ci meilleur buteur avec cinq buts Cadicen en onze matchs je pense qu'il peut mieux faire mais c'est un jeune bo xam voilà mi ngi avancé et voilà on lui souhaite bonne chance pour aussi intégrer équipe qui euh, bi euh, U23 également ki nga xamne aussi nak moy donc Pape Ndiaye Souaré mauvaise nouvelle pour Pape Ndiaye soirée mi xamna xam gars yi dafa gaañoon alors que mom dafa dem ci ben club librement waroon fa signé ben at amaat gaañu toog presque ay six matchs joué wul mu ñu amaat gaañu gaañu bo xamne ay weer lay togn de jouer franchement fi mu nañ ko ñaan ñaanal quoi yéen ñëpp ñaan leen pam Ndiaye soirée malheureusement voilà ki ku ñu waxoon du tek ci football tek na sax maanaam bu ñu waxoon du sore ci football ba tay nek équipe nationale patron bi duñ ko gëm bu ñu waxee ko jamono ji ay arrière gauche mako ko rek dama yaram day daw quoi parce que c'est un excellent joueur mais comme on dirait yàlla moom moo xam chaque fois la muy teg ci jaamam nañuy ñaan rek lu mu ñuy teg ñu mën ko dëkku également gars yi li ma ne kon information ñu bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir wooy leen di like wooy leen di abonné on avance ensemble dans la machine e-sportive et de Baba Show jaa ngeen